ci continuer waaye nag dañuy fàttalante rek ndax fàttali baax na te seytaan yi dafa gaaw dafa gaaw fëkk nit may fàttali rek man def naa sacrifice bu ne jël naa sama sama sama jëmm sacrifier ko sacrifier liggéey sacrifier sama liberté sacrifier sama famille sacrifier lépp bu dee nag sacrifier naa loolu yëpp teewul bu dee intérêt bi intérêt général ak intérêt Sénégal taxaw na ma ne man mun naa effacé wu puus ñeneen ñu dem kon waxu kenn kenn warul xalaate neneen kenn amul droit xalaate neneen may ñaan ñëpp nag ñu jëmbal lool waaye waxoon naa leen ci premier vidéo bi rek ni am na ay schéma yu taxaw ndax dama naan ñëpp nañu yeneen candidat yëpp nañu bàyyi mu des benn candidat wala dañuy bàyyi yeneen candidat ñu jëmmal ñu jàppale candidat boobu Bassirou Diomaye jamono ji ñuy wax ni ma nga kap man yooyu tëdd ndax bi fii ak boobu dinañ ko ba ma ndax dinañ ko bàyyi mu def campagne bu dee ma fa ci ba jamono jooju xaw ma ci yoon dañ ko war a bàyyi bu dee jamono ji egg nañ foofu te man tere nañ ma nekk candidat te moom ñu dis ñëpp dañ ko war a bàyyi au nom du du principe de légalité des candidats mooy état dafa war a tolloo les candidats yëpp d'autant fi ñu toll nii amul dara luñ ko condamné détention provisoire la jaay doole mandat de dépôt détention provisoire acté wuñu ko condamné wuñu kooku loo koy téye soo ñu demee ba conseil constitutionnel ne kii mat naa jiite réew mi war naa mën a nekk candidat kooku état amatul droit jàpp ko dañ ko war a bàyyi mu dem defi campagne waaye li ma doon wax mooy yeneen candidat la ma bëgg ci ñoom la may proposé boobu pour le reste nit ñi nak mën nañu dajé waxtaan xol ndax bëgg nañ ko defee neneen waaye suma ma sañoon yeneen candidat yi bu dee ëpp ñu ñent c'est-à-dire bu dee li ñu am ci candidat yi matul 5 bu dee soo génnee Basir mi ma tànn yeneen ñi ñu ñent dama ñaan li ma jàpp man mooy dañu war a maintenir seen candidature ndax day gën a day yokk rek suñu capacité communication waaye na Sénégal yëpp xam ni bu wat ba jotee benn Bassirou Diomaye lañu war a waxtaan ñeneen ñi nañu maintenir seen candidature mu gën ñoo yokkal temps de communication gën ñoo yokkal temps d'antenne ca lay jàll RTS waaye gën a diversifier également euh, possibilité yi ñu am ndax bu dee ci candidat yooyu ma tànn kii Cees la dëkk kii dëkk Malikounda kii dëkk Linguère ki dëkk Daara Jolof kaca des dëkk euh, nu mu tudd ci Ziguinchor kii dëkk et cetera mun nañu bokk def campagne def benn caravane nga xam ne dañuy dañuy maximiser suñuy moyen ku nekk sa temps d'antenne bu jotee nga wax sa cinq minutes wala sa dix minutes xamul temps bi ñaata lay doon boobu mun na sillonner le Sénégal ensemble mais mën naa am fu ñuy toll kenn ku nekk ne léegi maa ngi jël telle direction wala maa ngi dellu fu ma dëkk moo xam cinq derniers jours wala sept derniers jours maa ngi dem ci zone bi mokkal foofu mu gën a mokk waaye lépp campagne bi weesu ñu def ko ci cadre programme commun bi ñu yor muy programme Sonko deux loolu sama gis-gis la waaye loolu ubbi naa ko ba coalition bi mun na toog waxtaan. waaye candidat it ñoom ñëpp ñu xool seen bopp ku nekk xool li bëgg ku jàpp ni lool mun na cee dugg wasalaam ku jàpp ni moom dafa bëgg a bàyyi candidature am waaye day ñëw ràcc ci gannaaw Diomaye malgré tout def campagne ba baax na waaye sama xalaat rek laa joxe boobu ubbi naa ko naa ko bàyyi leen mën cee waxtaan. ànd naa nag Diomaye Faye xam naa ñiñ ko seqal ñu ñu ci mën a wax lu dul dëkk ci soxor. ci mëna sos seen dund yëpp sos la dinañu fay ay nit def nañ ko ci Ousmane Sonko ay ati ati at te teewul loolu dafa yokk Usman Ousmane Sonko ci askan bu ñu demee ba xam ni nag seen pexe sotti na ba tere nañ Ousmane Sonko nekk candidat keneen ko Ousmane Sonko tànn di ngeen déglu ne ci moom bu bon la soxat la euh, terroriste la salafiste la bëggul sëriñ si euh, fa mu dëkk sax kenn du ko fa xool nangam doole di ngeen ko dégg waaye seen mënin la jikko ngeen baal ma ci kàddu gi jikko naafeq la ndax booy xool ci alquran li ñuy wax ci jikko naafeq loolu bokk na ci mooy seen jikko loolu rek lañu fa sos wax lu bon fay ay nit ñu bind fay at yu du dem ci télé di wax waaye Sénégal yeewu nañu yeewu goo xam ne looy gën a yokk ci rek senegal yi di ko gën a yëkkati ñoom ñooñu ñëpp boo leen dajale ko man maa teg leen ci benn balance jël Bassirou Diomaye teg ci beneen bi mooy wàcc ñoom yéeg kon dama bëgg wax Sénégal yi ni ko xamne mën nañ ko sikk ci dara sénégalais 150% la xam réew bi bëgg réew mi di ko jubba ko jub jubba jub ku jàng ba xam li mu war a xam yépp liggéeyal état bi dugal fi ay milliards yi milliards te mu see jël dërëm sul jël terrain wu jàmbur kookee laa leen dénk mooy suñu candidat te bu soobee yàlla keroog le 25 février moy gagner élection bi dès le premier tour gagnel ñu ko si suñu tour ñun ñep inshallah ci gannaaw bu ñu defee li ñu wara def ñun ñep moy tak suñu dig may déllu nak di lancer un appel à tous les sénégalais de tout bord projet bi sen projet la de Pastef amul frontière nit mun na toog xalaat ni ah ñi de est ce que suma démé duñ ma dal est ce que suma démé amna place ci projet bi wala maa ngi faroon ci ci fii wala maa ngi faroon fële est ce que su demee dinañ duñ jàpp jàpp ni méngoowuma ak ñoom déedéet parce que ànd na ku nekk fii talal na loxoom ñëpp lenn rek lañu laaj kenn ku nekk boo ñëwee nangul règle mooy ñu ñëpp dañoo war a ànd suppi li li fi xew mënul wéy randal alalu réew mi détourné ay milliards dugal sa poche ak sa njaboot wala yóbbu ci ay banque denc jamono jooju jeune jeune yaa ngi bëgg a dee dem signé contrat bu la neex ñu jël àll lu réew yëpp tubaab yi génn yóbbu ñun ñu toog fii di di te ku bëgg a gém seen réew ñu ne doo fa dem tënk ñu tënk boo xam ne suñu koom seen loxo la nekk suñu koom seen loxo la nekk suñu koppar sax seen loxo la nekk ñun moom ñu fi dara loolu lañu bëgg mu jeex ku ànd ci lool bo ñëwee and ci fas ni ñu and liggéey ci lool am nga sa place ci projet bi kon ma ngi tendre sama ma ngi ma ngi tal sama loxo ñëpp bu ñu topp buñ ci eggee candidat bu ñu da nga nekkoon ci candidat opposition bi talal nañ suñu loxo di wo nga ñëw dugg ci projet bi lu ay condition yoy tek jaru ko du marchandage réew mi lañ jiital waye bu ñu yàlla mi kenn ku nekk ci toll ak la nga war a mën a yor dañ la dénk nga liggéey waaye nga liggéey ngir yàlla rek ak liggéey ngir yërëm askan wi la nga ci war a am ci payoor di nga ko am te yem ca ba ci yokk dara la nga ci war am ci payoor da ko am te bañ cee yokk dara loolu lañu woo Sénégal yëpp amuñu ci barrière amuñu ci frontière intellectuel yi engagement dafa jot de réew mi ko laaj intellectuel Sénégal yi ndax dañoo intellectuel yoo xam ne macha allah du te engagé nañu ci seen façon ndax lu xew ci réew mi dinañ joxe seen xalaat waaye dafa jot deux mille vingt quatre bi tournant la boo xam ne waruñu ko rate dafa jot ngeen gën a sóobu waa diaspora moom chapeau yéen moom su ñëpp meloon ni yéen heure bi kenn waxatuñ du ma leen wax dara